sëriñ bu mag a mag mag boo xamante ne biir Gàmbi la nekk sëriñ boobu bi mu ko fa fekkee dañ ko fa fekk mu sol robbam ak ay caraxam takk karawam ci kaw boppam genre déguisement pour ñu bañ ko xàmmee mais n'empêche bas moo def liggéey bu extraordinaire ak ñi mu xam ñu fexe fexe ba localiser ko woo fii suñu enquêteurs yi ñu fexe ba dugg biir Gàmbi mais bi ñu duggee polisu Gàmbi ñemewul dugg ci foofu mara bi nekk parce que effectivement am na mara yoo xamante ne boo leen fekkee ci seen fief dootoo ko defati mais bas duguna deugal bopam ak police yi bañu japp Aïcha actuellement mi ngi entre la police gambienne et celle de la du sénégalaise ñi ngi xol nak ban moment lay dugg si information mo fi wacc loolu mo nek résumé bi légui nak y a rien qui est mélangé bo len dégloo yéen ñi dogu ñew di ngeen comprendre bi top nak moy les commentaires qui sont en train d'être faits da ngeen respecte tout nit ñi ngeen baal ma ak ñima ko saña wax gënuñu fe xam gënuñu fi yor information mais tay ku ñëpp ñëpp di wër muy bas mom moy wax ak ñun ñun inventé wuñu créé wuñu utuñu buzz. Nata dogum la commentaire bu ñu fi di réewantu wax ma ma pousse commentaire yëpp duñu commentaire. wala yow boko nga pousse ko. voilà en gros en gros lool lañ mom moo moom fi xew ah bas mi ngi ci kaw. ku ko am question boko poser nga bind ko ci suuf suñ ko mënee jottali ñu ko li ci des beneen leneen amu ci mom dafa il a dañ ko wara remercier je ko remercier parce que les mu def su ko neexoon parce que na actuellement bu ko neexoon toog am ay centaine de personnes qui ko mais mënu satisfaire man nata bokk très attention parce qu'actuellement, c'est quelqu'un de c'est kenn ku le plus la actuellement kon moom bu jël initiative di wax ak ah, di wax éviter quand même di comme de respect ak di bind ban voilà ngeen baal ma nag maa ngi maa ngi déglu Bas. Bas oui Nabou. Bas yaa ngi dégg. maa ngi dégg Nata. léegi du résumé bi dégg nga résumé bi un peu résumé bi dégg nga ko. dégg naa ko su ni nga waxee sa noonu la fa jaa euh, noonu la fa demee bon pour ñu lay wax di am euh, Nata soo gisee sax ma réclamé ma ne dama fàtte sa tur juste jógalal journal buy posé question parce que c'est pertinent parce que question li ngay doon ñëpp ngay waxandoon parce que li ngay laaj am solo tellement que day mën a leer. franchement léegi kon respect boobu noonu dañ ko dara man dèjà ñeneen ñuy wax ñu lay ay da nga bëri woon dañu a comprendre ki soo laajteew leen nuyu fois nag am na commentaire parce que nit yi am na ñoo xam dañuy ñëw lu leen njëriñ am ñi nga xamante parce que aduna moo demee ne groupe bu nekk rek di am ñi nga xamante ne nu ñuy yaroo am ñoo xamante dañuy ñëw pour ruube am ñoo xamante dañ mais doo comprendre yow da ngay seet lu la ñu sañoon xam nga loolu waaw ñoom loolu mooy. ah ñoom buñ sañoon suba ñu fen looñu. <laughs> mais te lu ma la waxoon rek laa lay rek. bu soobee hmm? yàlla moom. incha allah bu soobee yàlla suba man gën naa yaakaar fi yi ñuy wax nii su suba suba soobee yàlla ñoom ñëpp dinañ seet. yaa ngi su soobee yàlla moom ñëpp dinañ dina leer bu soobee yàlla affaire yëpp dina leer. waaw man la ma doon def moom comme li ma waxoon laa lay waxaat sama combat la sama combat mère la. léegi léegi bas. waaw pardon ñu may woo nii dama nekk ci live. moo may bind juge retiré nga ma man retiré wu ma kenn de xanaa Léopard moo retiré. léegi léegi bas. Fani Choco waaw ñu ma nekk di woo. dama nekk ci live ngir yàlla bi ngeen may woo. voilà est-ce que est-ce que voilà voilà waaw je pense que c'est waaw ba ñu yàkkamti peut-être bëgg la jot. léegi léegi léegi bas. bas. waaw maa ngi dëgg. léegi léegi léegi li ngeen def ci tuub bi. pare enquêtrice bu mag nag nga jàkkaar lool nata bi dana la poser question ba yóbbu la boîte vocale. man ñu may ñi nga xamante ni ñu ngi bëgg a pour liggéey maire parce que maire bu gannaaw suba bu yeesoo rek mois prochain rek kenn mënul liggéeyam suñu tëjee tëj nañ mois prochain rek lay liggéeyal parce que noonu liggéey quoi. gannaaw suba bu jeexee duñu mën a liggéey. waaw baax mën nga defaale sa publicité fii ah, non non non suñu client rek doy na dañoo sonn da ngay sonoo sa bopp rek client rek doy nañ ñun am nañ lu ne. soxlawuñ ñeneen baax na. Hmm. ku ñu ñëw boole ma liggéey mais soo mooy loolu. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. ji ñun ñu am yëpp ji su ma la wanee suñu kër bu mu am fii ci àll bi doo ko gëm ji ñetti oto la am te ñetti oto yëpp ay nit ñu liggéey rek ñoo ñu ko may ngir kontaan. ndeysaan ak yeneen su ma la waxee ay semaine wala ay mois lu may jot ci xaalis mu ma la wax nag.

la rolu da legi legi legi moom la sa bi bag bagalati legi pende sa Pendisa sa micro nga wax ak Bass Pendisa voilà asalaamaaleykum ziar na leen naka mu sa ça va bien ça va bien waa thème am na solo trop bas ma ngi lay ziar bu ba Nata yéen ñi fi nekk ñëpp maa ngi leen am bas man laa bëgg a laajte Aïcha moom lan la causé ci meurtre bi. waaw Aïcha moom xaritu Nabou la. Mm-hmm. te moom Aïcha moom. vidéo bi nga xamante ni ci biir dese bi am na moo ko def ci portable am la yor. bi dina feeñ ci portable moom moo ko boole ak bandi yi nga xamante ni parce que moom mu soxlaan xaalis si ñooy jaar te Nabou boobu boo suñu xamee tey c'est grâce à Aïcha Aïcha moo ko xamale koy nit ñi koy. Mm-hmm. moom nag boole ak bandi yi boole ko seen paa bi nga xamante ni naka la nar a jaar ba jot xaalis bi ay sa moo tëgg boole nit ñooñu noonu léegi bu affaire bi amee bu affaire bi amee ba pare dee bi am sa waaye daf ko xam ay sa daf ko leen menacé xamal ni ko nag bu ci waxee wala turam wala mu leeral turam da koy rey wala mu dofloo ko dama mm-hmm. nag loolu la ragal menace bu ñu ko menacé wu noonu ak wax tur loolu la mën a mënatul wax dara Mm. Aïcha nag bu ma woowee ma xamal ne ko Adama ma xamal ko yow sa waaye nu mu duggee noonu lay lee da ngay dugg ci la mu commencé coupé ci mu commencé ma mu Aïcha mu daw duggu Gambie bu mu duggee Gambie xamoon naa nag dugg na Gambie ñu nekk di liggéey am nag nit bi nga xamante ne dafa ma na moom te kooku Sidibé la sant te day ki ki orchestre Jalibaab la yor kooku lañ jotal grâce à kooku ak yàlla tax ñu waxtaan ba xam fu mu nekk xaw ma fa tuutu xaw ma fa taata dara dëkk la daal xaw ma fa tuutu xaw ma nan newoon ci kër Tunkara Mara bu mag. waaw foofu lañ dem ba lokati ko alhamdulilah yàlla may ñu ndam ñu lokati ko léegi kooku moo desoon te jot nañu portable am te fu mu doon filmer eh, dessin ak yooyu yëpp ci portable am la nekkoon xaalis bi nuñ ko yëpp ci moom la léegi nag moom mu nekkoon pièce manquante. ah kon yéen gis ngeen Aïcha filmé la mu filmé woon ci dessin bi yëpp nekk ci téléphone am. lépp muy ci téléphone am. ah merci encore Fendi Sarr def nga liggéey bi léegi Bas. man lu ma jaaxal mara boobu moom ban genre mara ba la ba policier mënul dugg këram ndax ragal. policiers yi nga xam ne am am na maara nga xamante ni boo duggee si ñoom wala dem seen dëkk nan leen génneel seen nit mën nañ la dofloo mën dañuy xeex ak yow parce que loolu am parce que police du fa dugg am na maara yi nga xamante ni même Sénégal même kër yi nga xamante ni police bu ñëwee day négocier wala jaarale ko ci ñeneen pour ñu négocier ngeen génnee benn nit bi nga xamante dañ koy wër. loolu dafa am même fii nii. waaw moom mooy comme Serigne ñooy yenn mbàkke mbàkke yi dugg seen kër noonu waaw. voilà doo fa jóge dugg noonu mais ñoom Gambie comme dañoo ragal xam nañu waa yi ñu taxaw ma wax beneen waa ji bëgguma wax turam ak ku dawal ki mën a ko yow mën a ko mën a ko dañ dugg balaa ma koy dugg nag am na lu ma sotti loolu nag moo ñu indil problème loolu moo ma xuloo am na lu ma sotti si buntu bi comme sama maam la woon mu ko sottee ma dugg ma ne ko dañ dem bu ma eggee tam ci néegam boobu am lu ma sottee encore ma ne ko duñ parce que si biir bu ma nee fële néeg bi dañ dugg direct te ñun nag laaju ñaa dañu sotti rek dugg direct si néeg bi jàpp ñu naan lan la après ci la mu gën la parce que ñoom tam ñoo ñoo toog boo ñëwee lang boo fa indi dañ ko wax mais comme man ka la doon lakk ak yeneen mu ñëw commencé lakk seen olof yi mu naa man di daa ko rëccu commencé expliqué loolu ma ne ko du ma ko rëccu dara mu ne police musu fa teg tànkam même gambien bi police bi sax sama jël sama numéro sama waay la ndeysaan ñoo doon waxtaan ci ci yoon bi ku baax nii nii xamante wu teel a ñu xamante mais macha allah mu xamal ma ni carrément ha ah, préparer kii nii ak nii ak nii maama ma ne ko hé ma ne ko kii mu ne huit jours la ma wax ma ne ko huit jours dinaa dund lu ko ëpp ma ne ko bu moytu moom mooy dof te ba ma ñëwee wax ko sama maa bu ma ñëwee métti bu ma yeggee ba léegi juge bu dul saxan une heure temps la am ci biti maa ngi fii fii laay fanaan te lépp mu ngi koy gis lu mu nekk di waaj lu muy def guddi yëpp dañ koy tourné ah mais yow it am nga fit yow ni nga def ba dugg foofu am nga ah, dugg dugg naa fu gënoon grave foofu juge dugg naa hmm. am nga ñi ngi wax yenn dëkk yi am na ci yoo xamante ne doo fa dugg boo duggee dañ lay summi am na côté Fuuta bi sax am na ci kër kër mbàkke mbàkke yi par respect la mais fi muy fi ñu wax nii fàttutoo boobu muy wax noonu kooku da kooku amul soxla ci biir village ci ci biir ci biir euh, comment dirais-je amul soxla. yow it nata baax na ba booba rek yow kenn du yow yow it foofu. non mais man man dama xam bas nii rek xam nga bas moom ak suñu yoonu kàncu dama xam bas nii nii rek yaa ma gën a xam bas bas eggale eggale ñu ngi may. yow yow dinaa la jël ci dëkk bi dëkk yi nga. moom Malal yow du taxaw la nata man mii <laughs> sama dëkk bi rek suñu dëkk bi rek laa wax. suñu dëkk bi ku fi waaye nag problème bi mooy laal yoon xam naa ne day liggéey fajar te bés bi bugguma woon mu rate ko maa ko woo mais bu ma ko rusee boo bëggee yolleeku dem rek demal tëddee xam naa ne da ngay liggéey fajar. man kay xam naa léegi ma dama war a yow quatre heures du matin kay. xam naa loolu kay moom kay comme assisté nga rek su fekkee am na loo bëgg a posé bas nga posé ko. ba nga waaw voilà yoon waa. waaw yàlla yàlla baax na man moom man moom bas xam nga waxoon naa leen ko koroog nee naa leen lim si wax moom maa ngi maa ngi ciy doog dégg lu si gën a taxaw. te tamit hmm. fii la woon tamit mu ne fii une semaine dinañ jàpp ay waxoon na waxoon noonu waxoon na ko loolu noonu am na. kon hmm. nag euh, li ñuy wax mooy rek yàlla na yàlla gën a ñiit rek. képp boo hmm. xam ne daal taq nga si yàlla na la yàlla ñiit parce que li ñu def dafa rëy dafa rëy dafa ñaaw. Mm-hmm. képp koo xam ne nag taxewoo si yàlla nga ñibbi sa kër ci jàmm waaye ku ci laale ku nekk yal na la yàlla fu ñit feeñal la ci barki Seydina Mohamed. ndeysaan ndeysaan kontaan naa torop nag ci yéen mais damaa war a xëy fajal billaay. waa kay laal yoon ndeysaan kooku mooy mooy laal yoon dafa xaw a tàng tàng nag dafa xaw a tàng rek des fois gars yi boole maag moom ne ma laal yoon daa tàng ma ne leen non des fois daf ma xam nag nee na leen ba muy tàmbalee ak man deux personnes na ma doon seetaan ma ne leer la nga xam ko nga xam ko loolu sama may gi barki Seydina Muhammad yoo xam nga ne man du ma nekk fuñ may tuutalee du ma nekk fuñ may xeewee nga jox ma cër loolu ba ma xam ko te yëg ko moo tax yu bëri dama koy sóoraal sa laay barki Seydina Muhammad ndeysaan sama geer wala dara sax damay daw lu bëri parce que sa jëm sama geer yëpp la fekkee sama geer yëpp wax bu salté affaire de kacapan lépp la fekkee mi ngi geeru mënum beeg lépp waaw bi sol robb avocat yi lépp fi la ko fekk ñëpp sol ay robb yow yow nee naa xam nga naa la ko te ci kanam la jëm barki Seydina yow affaire la waaw yow yow te boobu bi may doog ñëw comme ni may taalee naan su amul cinq cent du ma wax boobu page bu ndaw a ndaw la damay toog ne su amul cent du ma wax moom xam na si dara cent daa bëri woon dafa bëri si man cent boobu jafe na si live wala actuellement sang may seetaan <laughs> waaw waaw ndeysaan ndeysaan fekkee na lépp ndeysaan am na am nañu ko fi fekkee fii kanam kanam la jëm incha allah man maa la ko wax ndax yow xam sa nitu démb waaw loolu am solo am solo moom démb a ngi bees yëpp la boole macha allah yéen da ngeen a fekk na ma tëdd mais yow moom boo ma woowee fu ma mënti nekk damay damay damay ñëw. te te te maa la pour nga fekkee quoi parce que cas bi dafa ma mujjee ëpp doole quoi. yow yow borom baax nga jàmm ci yow la sama jàmmeñ. léegi bas. Nabou mm-hmm. Leye bi mu yëgee ne ma bàyyi la xam naa da ngay bëgg bëgg a tëddi boo sentiree waaw ok waaw adama incha allah rabi. ok juste s'il te plaît deux questions rek ma jël ko. ñëwaat ñëwaat ma ma joxe paas léegi léegi Bas. Hmm. oui. léegi actuellement Nabou Leye elle se sent comment d'après toi wala xamoo ci dara ak nan la moom dans dans le rôle à part que jàpp nañu Aïcha est-ce que Nabou moo pré moo moo moo raylu wala ci la bokk wala actuellement yéen li ngeen gis ci vidéo wala yow tu n'as pas pu voir la la vidéo ci Aïcha ak Nabou Nabou Nabou rôle rôle exactement comme Aïcha tamit dafa mel ni pièce maîtresse la ci affaire bien. Ah.

légui nak ah, Aïcha dafa ñëw légui Aïcha dafa ñëw tegal ko ay dilam mom, tegal ko ay pion wam wax ko lu nekk lu mu koy defee lu muy jaaré légui bi bi affaire bi amé nak mom mu tëgg wëndel jël xaaliss bi duggu bir gambi daw balen fa mo leen ëpp galaaj jeexna mu demee non man ma tax mu daw mom bu muy né gaay mu menacer leen dañoo ragal wax ci police bi bu mu def bu nekk nekk na fay fan muy déglu bu mo woyé xamal ni ma carrément day yokku xaaliss muy xaaliss bu mu mujjee pour moom daal moom buñ ko si sax gis waaw ci laa ñëw dëkkoy ma ne ko dese am na fa ma ne ko na bu ñu ko jàppee noonu lañ lay jàppee mu ne dem ñëw ma ne ko nii mu ne ma kon dañuy xee ma ne kon ma ko combat sama combat la ma ne ko suba suba sax lañ lay jàpp mu déggee moo tax xam nga ne bu yàgg Gambie bu yàgg nga ko xam <laughs> waaw mu daw dugg Gambie parce que xam naa ko man <coughs> moo tax yow yow ko dimbali mais mais yow mais yow li ma mën a wax ba mën a wax yow ci yow bi yow yaa pousse enquête bi jàll mu dugg ba yow yow yi da ko da nga pousse enquête bi léegi yow enquêteurs yi tey bi nga toogee ak enquêteurs yi dèjà ba nga xam nga dèjà newoon nga ma da nga am ma ne la bul wax jour ak date ak heure. ci on ma ne la bàyyil mu sedd. très bien voilà non mais ah bien sûr c'est c'est da nga nekk en danger. nekkoo en danger parce que xam nga fi nga taxaw mais nit ki du mën lépp mën lépp ni day foog léegi man li ma bëggoon xam bi nga toogee enquêteurs yi par exemple ba nga toogee ñoom. nan lañ la nga ñëw toog jàkkaarloo ak ñoom lan lañ la njëkk laaj lan nga leen tontu ak lan nga génne teg ko si table pour nga xam ne effectivement yow yow affaire bi yaa ngi ci biir dara waru li ngay wax dëgg la nan lañ la gëmee par exemple parce que déjà yow xam nañ ne maanaa nga ñoom bu fekkente ne affaire de enquête la mën nañ ne non ñoom duñu mais yow lan nga leen convaincre ba ñu mën na may fit nga mën a bokk ci enquête bay bokk ci arrestation comment ça s'est passé

waaw mais mais mais Bas juge bi ci boppam bu ma ñëwee Dakar ci këram laa dal jabaram maa ngi koy siyaar madame bon <laughs> bu leegale bu leegale bu leegale bu leegale xam nga yow da nga ñëw toog ak enquêteur yi mais yow ñëwoo tour bi moo ñëw Bas moo tax nga am nga am faveur boobu yow ak a garaaw <laughs> sama maam du ma bayee noonu waay voilà moo yow bi ngay ñëw yow la fekk nga ñëw nga convaincre leen déjà li nga jël affaire bi def ko sa xeex def ko sa xeex wane ne carrément lii dafa war a leer yow bi ngay hmm. ñëw yow da nga ñëw mii tour bi nga àndal on am na lu la sa maam jox. mais parce que deuxième ñëw bi dama ko taw ma ne ko am na ñoo xam ne nee nañ la moo wax ci affaire juge bi ak leur ñeneen ndànk te dañ lay bëgg ni lem te évidemment ku nekk dafa doon xëccoo ñaar yoon xëccoo ma dal dal naa ci kër kii laa demee ma yendu ci kii soog euh, soog ñibbi bu fa dëgg yàlla ñu waxtaan rafet. ñuy nit yu gore ba fa dëgg yàlla. madame Diop macha allah parce que dañ leen dimbale dañ leen dimbale woon ci enquête bi léegi man affaire bi léegi man xam nga man dès le début man nee naa la man gëmuma que ne dañu rey man li mu rey bi xaalis d' accord mais rey bi est ce que c' est réellement confirmé que ne six millions cinq neuf cent huit neuf huit cent yi war noonu mën a tax ñu rey kii est ce que réellement c' était de l' argent. c' était pas xaalis moom xaalis bi la loolu moom xaalis bi la. mais maanaam ña demoon pour dem ñoom dañu ñëwoon pour agresser récupérer xaalis bi c'était pas pour rey rey bokku ci mais ña demoon comme ay yow sàcc koo xamante ni day sàcc ay quinze mille ay vingt mille ci gaañ nit boo wane six millions huit cent day forcé bu ñu leen jàppante ak waa ji waa ji dee bugg leen woon xaalis mais ci la ñuy forcé ay jamono yooyu mbëkk bu ñu mbëkk loo miir bopp bi toj am na ñu naan dañuy jam jamuñu mbiir bi bu ñu ko mbëkkal bopp bi toj ci la ñuy xeexee bu métti sa waaye keneen buñ demee te même paaka bi mu la expliqué xam nañu carrément sa waaye mu njëkk laal paaka bi moom moo ko génne gars yóbbu ñoon paaka foofu dese bu mu amee nag ci la ñu soog comme nu mu la ko ci la ñu na mu xamal ko affaire dem na mais franchement la ma waxoon dimb lay waxaat na bu rey la woon c'est pas pour euh, dem rey dañu wante a tax. waaw cest à moom woon am te la ma ko waxoon bu fa jaaroon tey yëpp du egg mais Aïcha la déglu Aïcha ak jëkkëru xam nga ni ki da nga koy jàppe dag mais euh, est-ce que affaire bi est-ce que est-ce que affaire bi demul ba ëpp ko doole. xam nga tey yow may waxee Aïcha ni tey gis ma ku am gàllaaj ak ku amul gàllaaj te ni nga ma waxee Aïcha moo ëpp gàllaaj nabu. téeméer junni yoon. voilà léegi nag. voilà léegi nag généralement nag. Mali jaay nañ oto ba Mali tonton bu ko doxal ma ne ñëw na fi ba gaabu. <laughs> ci ku ñu dem xam ko. waaw waaw tur.

moom kan leeral ko fii garaawal man daw ma yooyu. leeral déedéet am na bàyyi ko mu papa naa Amérique papa naa fi non non non non juge. non non hmm. ne cite pas de nom sur ton live il faut pas il faut pas hmm. ah, kon garaawal. sama sama équipe na bu ma bu ma tudd tur waa naata dama lay décorer de naata dama lay décorer <laughs> wallaahi xoola dama yàkkamti woon yéeg mais naata toj nga live bi wallaahi xoola naata dama defe journalisme merci gis nga da nga xoola ku tardé live bi boo ñëwee yow boo posé wee question rek di nga tax ba nit ñi comprendre at ba pare tu le fais xoola dans la discipline nga teey ànd ak dal ba pare di joxe ay questions yu pertinentes merci beaucoup dama dama yaatal non je ma xam si TikTok bi laa lay décorer wala si lay décorer. la la la parisienne. lay décorer par force yow juge la juge la ci biir live ma xam li may laaj mu mais c'est lui le star c'est lui qui crée les stars. voilà c'est lui le star voilà. je crois yow yow parisienne de je crois waaw ah, si si ñoo xaw a egg seendoo mais naata maa ngi sa ginnaaw vraiment. dégg ko parisien dégg la ngi doog gis sa message bi parisien xaw ma ne yaa ngi demandé. non t'inquiète et eh, xoolal bu ñu kase rythme bi naata fi nga teg sa loxo foofu la continuer. ba voilà voilà revenons. léegi Bas. oui Bas am nga enquêtrice bu garaaw. oui maa ngi dégg. dafa am ku ma ne naataan léegi ah Khadija. waaw yéen ñëpp gis naa leen juste s'il te jël ma mënuma jëlandoo ñëpp te sama nit yi mënuma leen wàcce mënuma si wàcce kenn kan laay wàcce fii xaw ma ko may wàcce xaar leen dinaa leen jël benn benn. juge soo bëggee ma wàcc nga jël nga jël ma après ma yeeyaat. non non toogal juge. bàyyi ma ma wàcc toogal non non toog leen toog leen bu kenn wàcc toog leen. non bàyyi ma wàcc. non non non bu kenn wàcc toog toog leen noonu rek toog leen bu kenn wàcc. man gunge naa la ba naata dugg si rek ma ne xaaral ma xabale. <laughs> yow toogal rek mais su fekkee da nga da nga bu la neexee wàcc mais mën ngeen toog rek. léegi léegi. léegi léegi léegi Bas. maa ngi ne compagnie sama mbokk boobu lu mu wax rek na compagnie o brigado ngobi drito na sugundi si saabi dews dews e grandi confirmo ma muito brigado muito obrigado compagnie ok muito bem ma ok maa jigo dafa ne naa nëbbatu dinaa kii loolu laa koy wax criol jërëjëf dana lu mu wax rafet na dinañ gën a nëbbatu yàlla baax na loolu dul duñ dara ñu wékk nañ sunu maam yàlla yëpp te lépp lu mu am tey yàllaa ko ko may te xam naa ku may tëkku moom te tooy ñu mën a def ma dara da ngay sonal sa bopp rek mais mënoo ci man dara euh, pardon ma tontuwaat encore benn maestro maestro man soxlawuma ngeen gëm ma ngeen ñàkk ma gëm ginnaaw police Sénégal ñu gën a ponkal ñoom ñoom wóolu ma jox leen ay preuve tey ba ñuy jàpp ponkal kon loolu moom man du yéen ñi nii nii yàlla may wax leneen lu may lu may dëgg te la ma leen wax laayoon nee naa leen nit ñi nang nañu saaga d'accord nang leen saaga mën ngeen saaga mën a tooñ sama numéro yi mun naa ko joxe ku ma ko laaj ku ma vocal saaga pour nga xamné ne ki sama maam aay na wala aayul wala tout deug la dëgg na ma kenn saga mom pàcc lu ma ko xoon na ma kenn saga doto waxat muuma ngay def sa voix su ko amé nga xamné la deug la ok wasalaam. Euh, voilà légui légui Bas man de de ah, euh, pour li ma conseiller de la barre waxon na la ko la dernière fois c'est vrai que tu reçois beaucoup de personnes mais je te conseille de ne même pas décrocher c'est juste juste répondre par vocal yow bul tontu sax par vocal ku soxla li mu bëgg na la ko envoyé soo ko mënee jël nga jël ko xam nga yaa ngi bëggoon dugal ci gamme pour ne pas ne pas faire mais dama lay conseil rek ne répond pas pour le moment ba ñu jàpp ñu ñu war a jàpp ba ñu xam enquête bi fi muy taxaw gis nga nit loo mën mën mën da des fois ragalal da nga ragaloo d'accord mais da ngay jël recul pour nga mieux sauter parce que actuellement tu yaa ngi ci bunt boo xamante ne ñëpp ngi bëgg invité la wala wax ak yow léegi nag ku la woo saaga la ku la woo lii yëpp ci prêter attention man man man ni ne prête pas attention à ça parce que xam naa yow fi nga toog man man je sais laaw fi nga toog actuellement yaa ngi toog foo xamante ne jot la du yomb léegi nag ku xamul nag mooy am fit woote di saaga wala woote la mais loolu mu bàyyil mu seet léegi man. revenons aux questions voilà loolu revenons aux questions. saaga ñeneen la ñuy saaga man ku ma saaga dootoo léegi léegi léegi léegi. entre-temps amul benn mbokk nabu bu la woo par exemple pour pour corrompre la amul ben nit bu la woo pour ñaan la ñekk. wax naa ko balaa ngay ñew wax naa ko nee ko boole na ay mara yi nga xamante nañ ma sax bañ ñaan dañ may defar ay bagages ma ko kuma ci waat ma waat leen ma rek xam nga ñum appel la ji def mais man kuma ci vocal parce que suma yoro yoroon ñaari portable maa mun japp sen vocal sen baat kuma ci japp sa baat doto waxat dangay muuma kuma ci vocal la japp sa baat yóbbu ko fa doto waxat motax ñom appel yi may appel wala vidéo wax de ki coupé mais bu ko dañu appel direct wala ñi vocal ci xam ah. appel ñaari portable portable appel comme déjà dafa bañoon wax ki nga dafa bañoon wax malheureusement heureusement Aïcha mhm. d'après les premières les les enquêteurs d'après qu'est-ce qu'ils t'ont dit yow ko lan la wax nan la ñu doxalee contente bi ñu am l'enquête dañ la wan nañ la enquête bi jeex na wala am na ñeneen ñu war a jàppaat wala exactement amatuñ nit bu ñu war a jàppaat leer na mooy que ci saa si bi ñu nekkoon ci oto bi sama daan dem ci commissariat bu ndaw bi lépp leer na ko jël nañu gis nañu vidéo bi comme nu ma ko waxee am na vidéo bi am filmé nañ ko ndax moom moo ko xool ci portable lañ ko gis ci meurtre bi gis nañu lépp xaalis bi bu ñu koy génnee ci sac bu jaune lañ ko génnee

c'est c'est c'est ban sens la ko waxee sens su désespéré sens su am fit sens su xam ne day dem day génnaat ban sens la amee fit jàkkaarloo yow na la yaa ma def lii di nga ko réccu non fu ma ko lu ma gis mooy que dem na xam naa jàpp naa mu doon jéem a tiital pour ma dellu ginnaaw mais man du ma tiit parce que bu aaye wala déggoolu wala moom elle est très mystique ndax ñetti mbaam rey nañ ko ñaari nag muy artiste bu siiw ku dem jaale dimbali lañ si envoyé nañu huit cent mille wax dëgg yàlla pour affaire bi leer muy bu baax yaa ma ne bu ma tudd tur. moo tax non non waaw maire bi moo ko dimbale woon envoyé ñu def ci loolu waaw plus que un ko ci ah, pour te pour lii mën a leer ñu mën a am parce que def na ci lu bëri moom Nabou Leye pour affaire bi jeex pour mu mën a gën dem na si ba jaay kotoom kooku jox ko avance mu dugal ba ci tonton bu koy doxal mystique ñëw na ba Guinée Bissau Guinée Bissau côté Gaabu la dem fu mu yegg muy doon wax bu mu expliqué ba pare pas bi fa la war a toog carrément mu ko. kii ngeen di doxal nii boo leen jéemee def dara ci moom yéen seen jëppu yàlla ko dul fekkee ci a xam su ko dee xamal leen ko mu dem mu ne ko li ngay liggéey liggéeyal sa jabar sa sa jabar dimbale na ko moom lu muy génne mais xale bi moom ak turu maam bu leen ko jéem a liggéey ku ci jéem a liggéey doo ko fekkee neuf jours man ay nit sax dama leen di liggéeyal damay dem ci maire bi liggéey leen bu ngeen dañ leen tooñ wala dañ leen dañ leen dëddale sa jégalu neuf jours da da ngay néewi boo jégalu neuf jours day dee mbaa mu dox man ku yóbbu sax laa la wax sama tur wala te sama tur dégg ñu mën naa ko joxe bas bi si noonu la mais ñu dugg sama WhatsApp gis nañ sama tur mën naa ko joxe ragal moom sama tur je euh, Moustapha Mbaye Seck mooy sama tur kon ñoom ñuy bind dañuy am lu yomb tooñu ma kenn. il nga gis soo ko na la def lu nekk naa la ko xamal tey mu jàpp. mais ki nga xamante ne tooñu la def loo dara. muy xee benn réalité nga ne da nga koy yàq te mu gën a taxaw posé da ngay sonal sa bopp. loolu yàlla loolu léegi dafa ma toog yàlla moo ah? may xam-xam boobu bu doon du yàlla suma du xam tuus du defal nit juróomi fan nga soxla am sa soxla wala am papier Europe ci ay neuf jours mu réglé léegi léegi suuf am na ñu ndeysaan y a des personnes yoo xam ne dama leen yërëm parce que dafa ñoo xamante ne elles veulent tous entendre que ndeysaan nabu bokk ci malheureusement d'après nabu ci la bokk mooy commanditaire bi. Aïcha daf ko jàppale malheureusement pour ceux qui ne veulent pas entendre si la bokk voilà ñun ñëpp ñu sañoon voilà ñun ñu ñëpp wa mais mais xam nga que bas nak dafa am lo xamantene ne y a des comme ñu ñi wax xam nga lu tubaab di wax très proche de la vérité mais tu ne veux pas l'accepter am na ñoo xam ne dañuy xam deug bi mais day metti ba duñ ko bëgg accepter parce que dafa hmm. metti parce que c'est nit la ah, wala bëgguñu ko parce que dañ ko miin ci écran bi tay kep buñ sa bu doon sago bu doon sagoon ndeysaan dañ naan bokk ci parce que actuellement sénégalais dafa am yërmande te te li am ni musu fi am moo waraloon ñëpp jug taxaw kon tey bu am na si ay fansam yoo xamante ne bu doon seen sag dañ naan non bokk ci Aïcha moo ci bokk mais malheureusement mooy le centre du problème tey su waxul woon affaire de xaalis su deful woon lii mi ngi mel ni ñaari xarit rek nga wax sa xarit lii sa xarit jàppale la Aïcha daf ko jàppale Aïcha n'est pas sénégalaise affaire bi am na mu profité daw dugg dugg biir gàmm te comme ça ça s'est passé d'après Bass léegi léegi léegi léegi bas soulagement man je vois dama dama la gis ci une benn facette boo xamante ne da daan jàppale nit sa nit nga xam ko nga dimbali ko mu dem ba def lu mu warul def nga taxaw faj ko kon man je me yow actuellement comment tu te lan lan ban sula sentiment nga am actuellement franchement gën dama la rek kontaante ndax kontaante la bu ñu loon ay sa gàcce la ndax ak lu ma waxoon bu may bloqué mënoo ci man dara te du tuuti nga pour pour yóbbu ma police ah, waaw wax boobu nag moo tax ma gën a dugg nii la ma ko waxee mu bloqué ma moo tax tey bu ñu dajee mu ne ma yaa ma def kii duñ ko rëccu ma ree ma watuomi ma ne ko neewoon naa la astafurlah balaa muy wax man maa ko ma ne ko neewoon naa la foo dem ci àdduna même bu doon ko indi naa la lokoti ma ne muy nii mu ne ko kon yaa def ok léegi may leen ma lu gàtt rek euh, Pendi Sa yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg. ne léegi dafa am loo bëgg a wax ak Bas bu la neexee nga wax bu la neexee nga toog. Bas dama koy wax rek bu mu bu mu dama koy wax rek bu mu kii daal bu mu tiit rek pour sëriñ yi couvrir leen. Mm-hmm. dañuy fen du ñu wax dëgg bi te bas dama lay xamal gis nga sëriñ boobu bés bu demee ba découvrir carrément la vérité xam ne carrément nabu kii di mel ne Aïcha ñoom ñoo def meurtre bi ñoo causé lépp yow dina la woo yow la te dina la woo mm-hmm. jàppale Pakistan mhm. est-ce que xam nga. Mhm. beneen policier daf ko ne boo xamul kii lu mu def. doo doo doo doo ko doon téye sa kër même benn fan. mais nag gis naa moom policier yi changé numéro policier Gambie yi mais li nga wax nii wallahi policier daf ko ne boo xamul kii lu mu def benn fan du fanaan sa kër. xale jigéen ñi bu ñu demee ci sëriñ jaral na leen di jooy di xaru jaral na leen lu nekk daf leen koy jaral rien que pour fen pour sëriñ bi couvrir leen. amul lu mu njëkk a wante mbaamaa mhm. xaw ma wante mbaamaa la njëkk a wax yàqu naa. loolu njëkk a wax yàqu naa te mu ne mbaa maa xaw effet soosé du jooy jooy yu métti fan jooy ci oto yi di jooy di kël kël di expliquer wallaahi ko yow tànk li ngay wax dëgg la yow tànk li ngay wax yow yaa ngi gis sa bopp li ngay wax dëgg la bu ragal dara sa àdduna wallaahi yow dara li ngay wax danga koy wax sa akulaay taara sa digganteeg suñu comprendre nga rien que pour mhm. euh, euh, jàppale nit ñi rek vider seen vider sa bopp vider seen moyen yi mhm. juste ça tey Fendista man tey su ma wax loolu lii dimbale mu politicien kon dëkk bi tey duñ ko xam kon Aïssa tey dina di dina doomu jaamu jënd bokk dina kon Aïssa day nekk fa te moom ñuy bo cet bi parce que tay so jëlee innocent donte ñoom ñu ñu nit ñi tëj leen fa mais ndey gi ñi nga xamanteni ñom ñoo tëgg mais ñoo ñoo dara a daanu dafa jot ay nit ay Sénégal dañu amante ay kasso dafa bari ay innocent ñam dañu fay tëj ndeysaan te defuñu dara té ñu leen combattre ko ko di dox wala di ëpp mystique wala ëpp leen bras long loolu boo nar a jee man de xaw ba keneen mais ñun bu jaar ci man ngir lu baax dañu defal lu baax mais lu bon sa yo ko défé am nga xeex ak ñun Mm-hmm. sapo um, sapo ok léegi Khadija léegi Khadija lan nga bëgg a wax uh, Bas Milano Khadija wala Khadija daa jàpp léegi tuuti net après parisien net bonsoir monsieur le juge merci si Yegel